Sénégal bu ñu jaaxle fan la ñu jëm ci ziar général fan la xel yi fan la xel yi jëm su ngeen bëggee ziar Seydil Hadji Malick Serigne Maam Mansour Dabax Malick Maam Habib Serigne Mansour borom daara ji Serigne Al Amin fan ngeen جواوان موي خلو سنغال خليل يا عجاوان زلا بتواوني وايكو يا كارتي الله تواون فيه اليمن للمتيامين فما تار فيها طائرون متسائمون ولكنها ذات الطيور